soxna si ñu dem ci beneen ba. beneen bi ci topp Ameth moom moo di kaaw Papa Sow waxoon nañ ko fi dem mais ci njeexintalu kaa boobu am na interrogation yoo xam ne jotoon nañ ko posé ngir bëggoon xam véritablement lan la Papa saw di def ci ginnaaw. ki nga xam ne moom moo di ministre de la jeunesse di Pape Malick Ndour donc mu mel ni beneen xibaar wàcc na ci ndax daal dinañuy xamal ne euh, Papa saw et euh, est chargé de mission au ministère de la jeunesse maanaam nekkul loo xamante ne ni peut-être euh, comme ni koy waxee. Euh, benn euh, lutteur la boo xam ne dafay recruter ay nervi donc am na ci vidéo boo xamante ne nii sax gis nañu moom Papa Sow mu ci mu ci àddu c'est vrai que nekk na vidéo bu viral parce que partagé nañ ko partout mu juraat yeneen interrogation parce que dégg nañu ko muy wax bay wax waxu salaire donc bu ñu mënee may image bi mu ànd ak son ñu déglu ko. asul boobu ginam muy moom xale la 33 ans la am am master en droit des affaires bàyyi ko bàyyi liggéeyam yëpp di topp liggéey papaam papaam dénk ko entreprise bu mag mu yor restauration bi nga nekk fële Casamance Ziguinchor di ko gérer normal soxlaawul dërëmu mindeef xam nga ñu dinoo baax di wax rek man liggéeyuma ci damay am salaire huit cent mille francs par mois kenn musuma gis si bureau jàmbur may ñaan kenn musuma gis Amadou il est témoin musul xam suma soxla mi ngi nii wallaay musul xam sama soxla ah. Modou nag moo ñu mettre en rapport tey Modou Lo billaay wallaay pression bu métti la am àndal fu gars yi toll ñu affaire yu mel nu mu mel nu seen diggante ñun nag Mansour Ba boo ko joxoon ndigal tey ne ko dama bëgg bu subaa 1 ba 26 nga dugg ci kër yi wax ñu votel pour Amadou Ba pour APR wallaay mu bàyyi liggéeyam ñoo defal la ko te am 100% mu ngi noonu donc vidéo boobu ni euh, ngi dégg muy wax ne Modou moo ko mettre en rapport ak ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba mais li tax ñu teg vidéo bi c'est parce que moom nee nañu dafa nekk chargé de mission ci ministère de la jeunesse mais dégg nañ ko ci vidéo bi muy wax ne dafay liggéey du fayee ko 800000 te du te du liggéey donc mu juraat beneen débat ñu mën a jël ñaari point yooyu lëkkale leen ngir peut-être nit ñi xam euh, nekk li ñu doon wax ne moom Papa Sow dafay recruter. nervi yi ngir nekk ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di pa Pape Malick ay accusation la yoo xamante ne ni dellu si waat nañ ci ngir leeral leen que ne nekkul loo xam ne moom mooy di am mais liggéeyam lay def comme ni mu waxee en tant que nit boo xam ne dañ ko teg foofu ca ministère de la jeunesse sa Alioune Badara Diop laa ci interpellé nan nga di suñu si suñu situation dëkk bi ak Papa Sow coow li nekk autour de de lui man je suis dans le factuel ah. <laughs> man franchement je suis dans le factuel comme ñun dañoo am déformation en tant que journaliste. Mm. on souvent dans les faits quoi. Mm. xam nga am na benn bu mu njëkk a indi fii mooy le cas de Diao Baldé. Mm-hmm. bon on est dans le factuel rien ne que ni def na ko wala defu ko. Mm-hmm. et même bu demoon ba def ko sax comme li waaj def. les gens ne sont plus libres. Mm-hmm. tey jii am na nu mu demee sax yow peut-être que tu es devenu plus qu'un homme public. boo doon am. soxna si ne ma baal rendez-vous ak moom en dehors de fii sax xëy sa biir oto nga koy defee ak yooyu. amaana bu ñu gisee ngeen toog restaurant sax xëy na ñu collé leen yenn motifs yoo xamante ni dañuy génn les gens ne sont plus libres man moom je suis dans le factuel. et au-dessus de ces mêlées man xëy na am na yeneen yu ñu tàll dul vraiment. vraiment pour man ça ne nous mène à rien quoi. on a des défis à de développement cherté de de la vie bi ñu ngi koy wax. d'où le sens du panel là bi nga xam ne dañ ci ñëwaat léegi. incha allah moo moo ëpp solo ayca. <laughs> comme ni ma ko waxee sànq Ahmed maa ngi wax que ni. li tax ñu lëkkale ñaari vidéo yi pour nit ñi mën a comprendre parce que débat bi démb posé woon nañ ko fi. vidéo bi mu leen tegal sànq nekkul vidéo bu récent mais justification la parce que gis nañ démb vidéo bi gars yi génne waat ko kon est moom moo tax Papa Sow à chaque fois ñu koy gis ci ginnaaw euh, homme politique yi parce que vidéo bi ñu leen tegal sànq moom ak Amadou Ba la te ci législative yi donc daf ñuy que li mu leen wax léegi comme information chargé la ca ministère. de seen ànd yàgg na de du tey. c'est une trop longue histoire donc. Euh, man man jëlee di dit pour mhm. revenir ci bi Awa di euh, leeralaat ngir ñu xam li ci am. donc finalement on s'est rendu compte qu'il est chargé de mission. Mhm. salaire am dina liggéey du liggéey. Mhm. il a 800000 par mois. loolu c'est un autre débat mais li gën a am solo mooy li waraloon débat bi mooy que ni ñu ne Papa Sow. day recruter APR la. Mhm. moom moo chargé di recruter ak ay nervi. Mhm. am na yeneen mbër sax yiñ ci yiñ ci tudd. moo tax ma ne la politique ak mbër ci ci laay ñëw ci mu di tout à l'heure que voilà politique ak mbër. Mhm. man je je c'est très rare de voir nos hommes politiques tey ku mu ci mën a doon. te amoo ay mbër. ay lutteurs soit ñu bokk ci sa sécurité. mais des sax ñu sopp la parce qu'ils sont des citoyens. des fois sax ñu nekk ce militant. bien sûr li monsieur wax léegi mooy il faut que les gens acceptent la liberté. de tout un chacun d'entre nous dans tes choix. Mm-hmm. ci sa doxalin. Mm-hmm. fekk yàqul. Mm-hmm. fekk lorul. ah foofu dinañ ci def taxaw seetlu. ngir mu baax ndax ñun ñëpp baax ñu taxu jóg. mais qu'on laisse les gens tranquilles ci seen piété ci seen vie privée ci seen vie publique. et que campagne de dénigrement bi ak de diabolisation bi quand même. lu la wóorul daal. di taf foto nit. di ko askanalee lu ñaaw. te mu wóor ni la ni yow ñi moo teg sa loxo ci kaamil ne lii may wax lu am la lu dul dama ko dégg am ñeneen ñu koy partage bàyyi leen xel ni nit ki gor la te it am na njaboot am na ay doom am na ñu koy bàyyi xel à quoi cela nous sert Sénégal dafa dem ba tool yaa Moussa foo xam ne maintenant quand tu es célèbre wala benn tokku célébrité sax. tu as peur de xaritoo ak nit boo xamante ni yow <laughs> politicien la wala amaana fas na ci beneen fànn. donc mooy monsieur Diop di wax rek. mais euh, finalement finalement Aïcha mhm. man. démb maa ngi ko doon défendre fi mais dama ko mere bi ma que mhm. pourquoi mu leen jox explication. maam ñi koy ŋàññi ils sont kii. mais dafa yaru papa papa yaru lañ ko xamee leen a jox benn explication c'est sa vie. Mhm. nit ñi nag doo bu ñu ñàkk fayda ñu ñuy tànnal xarit. siiw ak ñàkk siiw. bu ñu ñàkk fayda ñu ñuy créer ay ennemis mhm. wala di ñu ñàkkal fayda di ñu utal fu ñuy dem ak fu ñu dul dem maanaam ku ko ci accepté yaa ko teg sa bopp mhm. refusion ñoom ku ci nekk yaa ngay dund dund bi nga bëgg dund faral ka nga bëgg a faral ànd ak ka nga bëgg a ànd tey tey xam nga tey euh, tey da ngay toog fii di wax bu subaa bu ñu léegi daal li tout ce compte taxe bu subaa ñu gis la exemple benn Pape Malick Ndour boo xam ni xaritoo wala mbokk avant sax li am di am la mu ñu gis ngeen toog vous prenez un verre takk photo mm. Ahmed Ndoye était vendu loolu moo tax bu toogee ci plateau bi muy wax li wala muy wax en fait on est plus libre amatuñu maanaam léegi laa lay wax léegi nag faut refuser c'est-à-dire ñoom dañoo am fullaak fayda ñoom ñëpp ah ku ci nekk yaa ngi défendre sa intérêt Pape Malick Ndour bërki Dembo Ndiaye ba ñu laalee nguur geeg mm-hmm. nangam ak naam taxawul mm-hmm. tem bu défendre boppam mm-hmm. ñii nii Dembo Ndiaye loo leen dégg ñuy wax on va résister on va se battre jusqu'au bout maintenant nous aussi foo qu'on se batte jusqu'au bu pour suñu liberté dem fu ñu neex toog fu ñu neex faral ku ñu neex ànd ku ñu neex wax ku ñu neex. man de jeune ne me man man man je man me bats pas je ne me bats pour ma liberté. Mhm. Dieu m'a rendu libre. Mhm. c'est à lui que je dois rendre compte. mais ku nekk ak sa sa sa jikko. exemple man damay damay bàyyi xel si lu bari damay ragal lu bari. man li may ragal daal mooy tooñ. Mhm. ak def lu may xeebe. mais j'assume ma vie. yàlla laa bàyyi xel. ndax moom lay rendre compte. dinaa wattandikoo tooñ mhm. ak wax lu ma wóorul mhm. li sëñ bi wax mooy la factuel mhm. et suñu métier dafa neex ku ci teg sa tànk fa ko war a teg di nga gëj dégg plainte te doo taxaw ci kanam juge parce que doo sos doo yokk doo wàññi factuel ngay dox ndax lii ngay te dalay wóor keneen kuy def leneen nag yow la engage n'est-ce li ma gëm daal fii la papa Ibrahima Faye toog mook Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni ñoom ñoo am amee coow 98 milliards bi te bokkuñu camp CI ba seen ñoo ñoo daan benn banque aujourd'hui il est directeur du FERA e bi fonds d'entretien routier autonome bi bokk ci département ministère bu Mansour Faye buggaan nekk dans l'opposition gëm sa bopp wax leen li leen di waxal ci 98 milliards bi te pourtant ñoom ñaar ñoo daan bokk benn ban yi ba seen de ils ont de très bons mais gis nga fi àddina àgg ba ñu mën a sécliner mel kon dëkk bii nañu arrêté quoi non non non nañu arrêté nañu arrêté nañu arrêté quoi Ahmed bëgg a commencé moom. Ah, hmm? et puis précisé na foofu laa jeexalee que du politique moo leen boole. mais grand wam la depuis xale. maanaam yàgg nañ. ànd nañ depuis depuis xale. suñu morom la Papa Sow grand am la moo ko yàgg daf ko yàgg bëgg Franco depuis tout petit ko tey yàlla am fu mu ko féetale mu xëcc ko indi ko ci wetam. da ngay merci beaucoup am ñu dem xooli ñetteelu bës bi fa la ñuy jeexalee mu di Aïda